kon moom mi ngi nii di wuyu ji fa la nga xamante ne moo di tribunal moom président Ousmane Sonko a forme yëkkati na loxoom wax dëgg neex yàlla dalal xel sénégalais yi mi ngi noonu kon mi ngi nii di du waaj a dugg ci otom moom président Ousmane Sonko di wuyu ji fa la nga xamante ne tribunal militant yi ak ñu ko wër ñi ngi koy xamal ne ko tey ndam la rek tey xel mu dal mi ngi noonu dugg na ci oto bi kon cortège baa ngi noonu moom président Ousmane Sonko dugg na ci a defee sénégalais yi xamee ko noonu Ousmane Sonko dugg na ci otoom nii ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa sa sa sa garde rapproché garde rapproché boobu tey jii nii ñu ngi ci wetam moom président Ousmane Sonko dugg na ci oto bi oto bi départagul nag waaye du ñàkk sax mu mën a départ léegi waaye li ñu seetlu mooy fii même sax bu ñu amoon ay militants yoo xamante ne bëgg nañ ko accompagner ci jàmm ak salaam tey jii nii kenn mayu leen ko li tax kenn mayu leen ko mooy yoon bi yëpp. yoon bi yëpp yoon bi yëpp yoon bi yëpp wax dëgg neex yàlla dañ ko barricade kon mayuñ ko yoon oto baa ngi noonu ngeen gis moom président Ousmane Sonko mi ngi waaj a départ force de l'ordre yi ñu nga ne la ca gannaaw suñu kanam itam di ngeen du ñàkk di ngeen ko gis ay takk der ña nga fa fii ñu toog nii ñi nga xamante ñoon ñooy ay garde rapproché am ñoo ngi fi donc li ñu seetlu rek mooy fi mu ne nii dal li ñu seetlu mooy koo xamante ne wax dëgg neex yàlla reetaan xel mu dal